pression aussi de certains partis euh, passifs à perdre daal ñooñu wër li que nous euh tas manam de la dissolution même itam donné xaar euh, dara si mom moy dem li nga xam ne xewona fi Sénégal fait divers mais la sortie de Amina Poté na xaar aussi vu que ni mom doon traiter li nga xam que modi ay gisuñu ko mu daal di dugg si boobu dañ xam ne que moo di cas contrairement ak kaaw Thioro Mandela bu Walfadjri euh, inu l'observateur bu tay bi ak revue de presse bu Modou Mouhamed Ndiaye dégguñu ko si de l'observateur euh, du titre loolu Amina Amina Amina Poté ak Kouthia bi ak Kouthia bi ah. non du ko titre quand même ñooñu ci ñoom la lañ bokk lii mooy presse boo xamante ne à double vitesse la moo tax ma ne la l'observateur ah, l'observateur nga ne TFM mi ngi lan ma ne l'observateur laay wax <laughs> l'observateur média bo xamantene ne ni le la mën wax déjà mu ngi titré hors la loi. mu bind APR ak PASTEF. maintenant ce qui enfreint les mœurs du Sénégal lo xamante deug nañ ko euh, ci samedi bi ak dimanche bi ñom lu tax titrer wuñu ko. le cas de Amina Poté le cas de Thioro Mandela am fi ñom ñu titrer ko bay def revue ngay gis mo Mohamed Mohamedou Mohamed Ndiaye bay bay xëxëti xët di revue de presse bay xëxëti ci ci Mandela mais léegi Amina Poté mom revue de presse mu omettre ko lu tax mu omettre ko. daf ko wara wax bay keut xëti ci lolu lolu la loolu mooy loolu mooy l'observateur nak euh, presse kii bi euh, journal bo xamantene lu ko neex lay bind. nekkul ci éthique ak déontologie. mais l'instar c'est la famille. ils sont tellement amateurs. l'instar c'est la famille. l'observateur c'est un journal amateur. l'observateur bu nekkoon dans un état sérieux kenn du ko jënd. Quel du jënd presse qui journal mais aujourd'hui il bat le record de. Mané. ne la wax parce que Sénégal dëkk caaxaan la moo tax ma ne la caaxaan la bu fekkee on est dans un état sérieux hmm. l'observateur quel du ko jënd dañ koy boycotter. mais le lynchage parce que dafa bokk ci dafa bokk ci média yoo xamante ne mais tout en mais le lynchage se lave en exemple. Mané, ne dafa de ci média yoo xamante Sénégal bu amee chaque fois guuta bu amee fii l'observateur bokk na ci ñu andi guuta googu maintenant ñu faré ci ñom ñom lu duñ leen titre <laughs> voilà fofu la ñuy alors lu mu bind ci les hors la loi APR ak PASTEF ken du fi tas parti on est dans un pays démocrate fi il y a pas une pensée unique. mais heureusement ma si ba si booree APR parce que su waxoon. PASTEF rek loolu maslaa la. APR xam nañu mom yow <laughs> yow kan moy tas APR jamono bi nii kan mo am sañ-sañ bobu yow ko nara tas APR APR ci APR la bokk ñom li nak pour manipuler la pour ne wala voilà comme bolé nañ ci APR bolé ci PASTEF voilà kii kenn du fi tas parti muy APR kenn du tas APR kenn du tas PASTEF on est dans un pays souverain où y a la démocratie maintenant bu bu ci dëkk bu am démocratie lañu am ko am sañ-sañ euh, euh, am wax wax lo te ne am la parti am sañ-sañ doxalen comme lum ko lum ko nexé yo nga né yo da ngay tas parti bob au nom de quoi kenn du fi tas parti. nañu xool lu ñuy tas am na loo xam te ne war nañ ko tas. seen mërs yooyu bon yooyu lañu ñu war a tas seen mërs yooyu caaxane yooyu programme yoo ne ay programme caaxan la programme yooyu lañu ñu war a tas ñu bàyyi loo xamante ne ay diine ay loo xamante ne day andi day andi au moins euh, comment dirais-je xam-xam askan Sénégal mais Sénégal caaxan moo fi dox caaxan caaxan. saaga diw ormal sutura diw saaga diw eh, jë xoolal ay ojo yoo xam te ne ñu ngi daw ci internet bi ñu naan Kouthia moo ko waa ba ay jigéen am audace taxaw point de presse di wax lu leen neex ci ay mœurs où est le procureur de la république dégul lii où est Jamra <laughs> où est Jamra mu ngi mais actualité bi. Uwe Jamra euh, ba ñëpp naan focus sax Ousmane Sonko peut-être actualité bi. dafa changé démb si sorti Amina. nañu bàyyi tiaxan. ok nañu bàyyi masla. ok ba si l'observateur yi ñu daal dese ni mu daal dikk exactement ak Mamour Diallo reprend la parole. Mamour Diallo jëlaat na li nga xam ne moo Sénégal alors li wax nak moy pexene pour daal di falat ki nga xam ne moo Macky Sall xër gu njëkk bu l'observateur euh, justement aussi le retour de Mamour Diallo ak aussi le média dont il a choisi pour parler exactement ben aura bu mag la parce que nee na pour joxaat président Macky Sall troisième mandat. Mamour Diallo il est qui. directeur de l'ONAS. ah ouais mais c'est aussi bilan directeur de l'ONAS un membre de euh, euh, de APR. mais il a le mm-hmm. droit. Mm-hmm. amna na sañ-sañ wax lolu même bu fekkee constitution du Sénégal permettre wul lu mu wax ni. ñu fal ñu may président de Macky Sall troisième mandat ci ban constitution la nek mom fal la sukkandikoo bay wax lolu alors une fois Mamoun Diallo mënul jox Macky Sall troisième mandat loolu ay propos la. Hmm. Mamoun Diallo base am fan la. Hmm. <laughs> problème dafa am base Mamoun Diallo dafa am base. mais peut-être gëm na ko. lan la gëm doo ma ne Mamoun Diallo peut-être ay Louga gay, la yakar pour falaat Macky Sall troisième mandat Louga Louga Louga non quand même il faut arrêter quand même. tu es le directeur de l'ONAS on attend à ce que nga andi l'ONAS lu ok. <laughs> mais lan la andi lonage dara beesu fa. c'est clair ay dak ay ñi ay andi ñi ñi euh, togg ay weer du ñu am duñu fayeku na régler lolu ba paré merci beaucoup Arfan il faut qu'on règle ça quand même. dafa ni na merci beaucoup ñu lay remercier bu baax baax baax on se donne rendez-vous demain inshallah allah pareille heure damee incha allah euh, di la jaajëfal aussi de la remercier de la remercier de remercier aussi euh, sénégalais qui am te ñoom ñoo ñuy déglu ñoom ñuy seetaan de euh, di remercier di leen jaajëfal di voilà nous continuons di abonner sur la meilleure chaîne digitale du Sénégal et aussi di de di remercier dylan di rendez-vous à demain incha à demain incha chers téléspectateurs merci beaucoup autant que vous êtes justement ça a été un plaisir de démarrer cette nouvelle semaine avec vous avec vous chers téléspectateurs de Sénégal 5 TV n'oubliez pas aussi dem di site internet le www.sénégal5.com. Merci à l'ensemble des équipes en régie à euh, Tafa Alors, bonne suite de nos programmes sur les antennes de 5 TV et euh, bonne journée à toutes et à tous.